cant ñeel na la Amadou nga wàccaale ñépp am nga nihma Sëriñ Tuuba cant ñeel na la Amadou nga wàccaale ñépp am nga nihma cantanu war banu amee ku mel ne eh, bokk yi ñu leen di nuyoo léegi sëriñ bi sëñ Abdourahmane Mbakke la fépp sëñ Bay Mbakke boroom jaaxal moom mii tey moom mii tey la ñuy xoole boroom jaaxal ñuy ñaan nag sa borom yàggal ko fa te wéral ko ca may ko wér goo xam si na fa def jëf joo xam ne si ni mu méngoog lislaam bu jaaxal ñëpp ca ànd ko sëriñ bi sa jitaay bii xol yi sedd na ci guy xel yi dal na ci man de Mbàkke ba gën naa la waaye gën naa laa bëggaat ndax man sëriñ bi rek laa bëgg te bi nga toogee sa jitaay bii tuwaat fa kàlla ba tey ci sëriñ bi nga commencé ci sëriñ bi nga yem dégg naa la bu baax léegi ci sa biir wax waaye am ndaw mën a yónnee ca ko yónni mu daw boo solee saw dàll ba balle sa ni man kat liyee ma saa bopp ma ca doy loolu doy na sa sëkk ak ah, kon Mbàkke nanga xam ni bég nañ bu baax ci jitaay bi ndax it keneen ko yónni bu ñëwoon fii rek nga toog lay toog ndaxte darajey ka yónnee bu ñëwee ndawul ndawul ko yónni bu ñëwee darajey ko yónni rek nga koy yox kon boo nee bisu sëñ xaadim duma ma ca yónnee damay jógal sama bopp ànd ak sama njaboot dem toog loolu day ballay sa rëy na lool ci seen xaadim waaye li nga ni sëriñ Tuubaa laay liggéeyal ba pare nga ni nag ndax leer na ma ni bi ma jógee sama kër ba ni may delluwaatee maam tànk yu ma jéggi ah ma tànk tuyaab rek lay doon loolu day ballay sa def ko day yomb na waaye xam ko yombut def ko moom yomb na xam ko yombut ndox ko nag bi nga ko dee pare nag wala nu xam ko kon loolu mooy mbirum baatin baatin bokkut ak baatin neen Mbàkke ñu ngi lay sant bu baax di la dalal bi wax dalal jàmm di sàkk ko tam jëm jii di Sëriñ Xaadim nga ñaanal ko pakk yi ak kàmb yi ak jiit yi yi bari na lool waaye liggéey Sëriñ Bamba daa doon loo xamee ni siini boo ca nekkee loo jub maam sëñ bi koy maaseel ba fam nga jàll na nga ko ñaanal bu baax kamb gum jub mu maasaloo dégg gum jub lu ne xoola dégg suppali ko bant bu sedd buy ba yéeneem ci yoonu suñ bamb yi mu yeggale ko ci naan ko ñuy sàkku nag nga yëkkati ci kàddu ne ñu ngi nuyu mbooloo mi kenn ku nekk ci turam ak santam

lépp mu àggale ko nu ko soob ne di ñaanal sëriñ mu taxaal lépp loo xam si ni ma ah ma waajurum yu baaxee ak magam yu baaxee naalan na ko loolee sa borom yeggale ko ci loxoom ca nànd ko can fekk ko ca ànd koog moom nag ne can fekk ko ca ànd koog moom nag ginnaaw bu loolu wéyee ne ñu ngi sant bu baax sëriñ Xaadim Kebe mii nee di ko ñaanal. nee li ni ñaanal suñu bopp rek. mu yàgg fi lool. nee mu yàgg fi lool. te wér lool. nee ca wér lool. nee ca wërsëgu yaatu. mun liggéeyale sëriñ bi. nee mun liggéeyale sëriñ bi. nee sëriñ bi nangul nu liggéey bi. nee ca sëriñ bi nangul nu liggéey bi. ci gàttal. nee ci gàttal. wax moom du sunu mbir. nee sëñ bi nee wax moom nee du sunu mbir. waaye nag njëgam mënta ñàkk. waaye nee njëgam mënta ñàkk. loolu mooy sabab nu koy jéem waaye wax moom du sunu mbir. nee na loolu mooy sabab nu koy jéem waaye nee na lu wax moom du sunu mbir. ginnaaw loolu sëñ xaadim. sëriñ bi nee ginnaaw loolu sëriñ xaadim. na sa xel dal bu baax. nee na sa xel dal bu baax. ndax. ne ndax. li tax ñu wax loolu yii. ne li tax ñu wax loolu yii. dañ koo gis. ne dañ koo gis. gis gi mooy. ne gis gi mooy. dara ñoru la. ne dara ñoru la. dara yitteelu la. lu dul sëriñ bi. lu dul sëriñ bi. kon loolu yii. ne kon loolu yii. moo tax ñu ne na sa xel dal. moo tax ñu ne kon ah Kébé na sa xel dal. ndax kat. ndax kat. Serigne Touba moom. Serigne Touba moom. ku ko jox sa lépp. ku ko jox sa lépp. bàyyi koog sa lépp. bàyyi koog sa lépp. mu yoral la sa lépp. la sa lépp. lay mbakke. defal la ci sa boppit it loo mënalul sa bopp. defal la sa bopp it sa bopp. li ngay wax. ne loolu muy wax. maa dégg ci sama waajur mu ne. nee daa dégg si waajuram ne mu ni. lii nga xam ne moom la ko Sëriñ Tuubaa cërale. nga xam moom la ko Sëriñ Tuubaa cërale. muy xasida yi. nee muy xasida yi. nee na lépp a ngi ci xasida yi. lépp a ngi ci xasida yi. ndax xasida ndax nee xasida yi. dafa wax ne. nee dafa wax ne. lu ci lépp lépp. lu ci lépp ne. lu ci lekk nekk lépp. lu ci nekk lépp. ci biir xasida yi. ah ci biir xasida yi. dafu ak jalbu rek la. dafa lépp dafa ni. dafu ak jalbu. dafu ak jalbu rek la. te loolu mooy. te loolu mooy. loo xam ne lii. loo xam ne nii. bëgg nga ko. bëgg nga ko. te mënoo koo ñàkk. te mënoo koo ñàkk. te mënuloo ko sa bopp. te mënuloo ko sa bopp. sëñ bi defal la ko ci barkib xasida yi. ne sëñ bi defal la ko ci barkib xasida yi. la nga ragal di ko daw. nee la nga ragal di ko daw. te mënoo koo raw. nee ca mënoo koo raw. mi ngi ci sa ginnaaw. nee ca mi ngi ci sa ginnaaw. te bëggoo mu jot la. nee ca bëggoo mu jot la. sëñ bi musal la ca loolee. nee sëñ bi musal la ca loolee. amiin nag ñaar yooyu lépp kon nag loolu nag say. ma ne ah, ñaar yooyu lépp ngi ci ñaar yooyu ne lépp ngi ci. xasaayid yi. lépp ngi ci xasaayid yi. lépp mi ngi ci xaside yi. kon nag sa xel dal bu kon nag sëriñ Xaadim sëñ bi nee na sa xel dal bu baax. nee la ca des it. nee li tax ñu am ci yaakaar. nee li tax ñu am ci yaakaar. ñoo dégg di gis. nee ñoo ngi dégg bu baax di gis. am na ñoo xam ne nii. nee am na lu ñoo xam ne sii nii. am na nun la jàppee. am na nun la jàppee. tayit tayit am na fu la teg. amit fu ñu la teg. tayit tayit am na lu ñu bëgg ci yow. nee am lu ñu bëgg ci yow. yàlla ak sëñ bi du tas yaakaar jooju. nee ci yàlla ak sëñ ñu tas yaakaar jooju. kon na sa xel dal bu baax jërëjëf Mbacke. daal noo ñoo sëñ bi. sëñ bi daal nee ñoo ngi ñaan ci barkeb sëriñ bi. yàlla yokk fan yàlla suñu borom yokk fan bi. te wéral cër yi. te yokk wërsëg wi. te yokk wërsëg wi. di la xamal ne suñu diggante moom. sëriñ bi ne mi ngi lay xamal sa digganteeg moom. duñ ñaar benn du ngeen ñaar benn ngeen. alhamdulilah loolu it na yaa ko jëfe. ne leen ah yaa ko jëfe. tax ma ne tax ma wax la ko mooy. xamul lu mbay mi ma boole ci sëñ tubaa. ne xamul lu sëñ mbay mi ko boole ci sëñ tubaa. ndax ku ndax ne ku la boole ci sëriñ tubaa. mënatoo koo fay. koo fay. mu boole ma ci sëñ tubaa. ne mu boole ko ci sëriñ tubaa. sama buntu ci sëñ Touba. ne buntam ci sëriñ Touba. di sama buntu ci sëñ Touba. ne di buntam ci sëriñ tubaa nga jàppe ko nii nga ko jàppe nee nga jàppe ko nii nga ko jàppe lu ma nekk ci moom nga nekk ca. nee lu mu nekk ci moom ne nga nekk ca. lu mu xat-xat bàyyi lépp. nee loo xat-xat ne nga bàyyi lépp. nee loolu rëy na ci moom lool. moom nag matuma ci moom seere. nee na moom nag ne matul ci moom seere. ndax ni ma demee ak moom. ndax ne ni mu demee moom. waaye mosumaa gis kenn kenn kenn ku ko xam. waaye ne musta gis kenn kenn ku ko xam. jàpp ko. jàpp ko. defal ko la nga ko war a defal ngir Serigne Touba. ne defal ko la nga ko war a defal ngir Serigne Touba. ci Serigne Touba fayu la. ne ci ko man gisagu ko moom. dëgg la. kon kon nag Serigne bi ne foofa la waxe moo tax ma ne. ne moo tax mu ni. maa ngi yow ñaar benn ngeen. moo tax mu ni maa yow ñaar duñ ñaar benn ngeen. loo nee na loo nekk lu ne xamal ni ma nga ca. njaboot gi njabootam gii mu àndale. muy sëñ Seexuna mii. nee muy sëñ Seexuna Mbakke mii. di doom ci man. nee di doom ci moom. ndax baayam. ndax baayam. Euh, maak moom. mook moom. seen ñaari baay seen ñaari waajure bokk ndey ak baay. lu waay gàtt gàtt ci yoonu murit. lu waay gàtt gàtt gàtt ci yoonu murit. ndegam xam nga ci dara. ndegam xam nga ci dara. wala doon nga ci dara. ndegam doon nga ci wala nga doon ci dara. dégg nga sëñ Abdourahmane Mbar. dégg nga sëñ Abdourahmane Mbar. jumaa ji seere la ci. jumaa ji seere la ci. moog sëñ Mbaye ñoo bokk lépp. moog sëñ Mbaye ñoo bokk lépp. Cheikh Abdou Mële. Cheikh Abdou Mële. doomi sëñ Balla la. doomi Balla Mbarke la. sëñ wax. sëñ Balla moomu muy wax. mooy taaw sëñ Abdourahmane. mooy kii ci sa ginnaaw sëñ Xaadim bi sama doom la. kii ci sa ginnaaw ne sëñ Xaadim nee na ko kii ne doomam la. keneen kee ca des sama doom la sëñ laa ko tuddee. ne keneen kee ca des doomam la sañ Balla la ko tuddee. te ñoom ñëpp. te ñooñu ñëpp. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. waxuma sama diggante ak waxuma digganteem ak yow. waaye ñoom ñi kenn ku ne. waaye ñoom ñi kenn ku ne. am na ah, fu mu la teg ak nu mu la jàpp. am na fu mu la teg ak nu mu la jàppee. dëgg la dëgg la ci loo séq ak ñoom. ci loo loolu lépp sang baax la. ca loolu lépp kay akabe sang baax la. kon nag. wax jaa ngi bëgg a gudd. wax ji ah tuwaar fa kàlla macha allah dafa neex lool te am solo. te wax moom bu baree rek. te wax ji moom alhamdulilah rabbil alamin moom lépp dëgg la. <laughs> li ma bëgg a wax mooy. ah waaw ne li mu bëgg a wax mooy. nan ko yemale foofu la. nee na kon daal dañuy ñaan ba demee teg jàmm nee dañuy ñaan daal ne ba demee teg jàmm. sëñ bi ne jërëjëf sant na bu baax a ah, Mbàkke noonu lay war ba nu amee ku mel ne daa Mbàkke mu ni bégal ca Moustapha ca Moustapha ci xasidaam